asalaamaaleykum mbokki internet yi dal leen jàmm seen seet leeral foot te ñu ànd ak yéen wax ci nga xamante ne moo di Moussa di nekk fële ca Bundesliga moo di Mayence benn club mais laataa loolu gars yi bu fekkee yaa ngi dooru ñëw si seen bi ñu lay ne bu fàtte abonné wu activé cloche de notification bi comme ça nga bañ a rate suñu prochaine vidéo Moussa Niakhaté nag benn but national la franco sénégalais di ëppale fële ca Bundesliga moo di Mayence mu dem na ba mu nekk foofu capitaine fu mu toll nii moo nekk capitaine foofu mais nekkoon na fële Metz nag Metz championnat France ci waa Mayence ca fa lañ ko gis après ñu jënd ko mu dem fële ci Bundesliga moom nag moo amaloon benn entretien ak RMC Sport gars yi di ko doon laajte choix mi pourquoi mu dem Metz alors que amoon na ay club Angleterre yu ko doon laajte mu ne non football da ngay xool lu la arrangé nga jël ko quoi tu vois lu la arrangé nga teg ko ne après gars yi ñu laajte ko question boo ñu yegg si fenn quoi ñu ne ko actuellement yaa ngi ak 26 ans est-ce que jël nga choix pour équipe nationale mu ne ko. mu ne leen daal man jël naa suma choix ba pare fu mu toll nii mais en tout cas moom duma ko wax fii ci média mais jël naa ko suma choix daal ba pare xam naa lu may def jël naa suma choix. réponse bi nag gars yi réponse mu arrêté ñu tuuti quoi parce que temps yële passé nag déggoon nañu ay rumeur que Aliou Cissé contacté na ko kon tey jii nii ak mu ñëw déclaré lii c'est comme si ko daal il est prêt pour s'engager avec le Sénégal. d'après ay ay parolam parolam boo ko déggee c'est comme si il est prêt pour s'engager avec Sénégal di leen rappelé nag moom nekkoon na fële ci espoir français joué na foofu ay match ah, daanaka match yu bëri mais léegi nag dana décision daal nee na pare na pour engager ak équipe nationale xamuñu nag waagul nag ban ban équipe nationale mais ñun ñoo supposé rek que équipe nationale Sénégal la quoi parce que boo xoolee lu mu wax noonu mu ne carrément du ko wax foofu daal mais en tout cas jël na décision pour équipe nationale kam moo ko jegee récemment Aliou Cissé moo ko jegee récemment pour mu jéem a ñëw suñu équipe kon tey jii nii gars yi ñu rafetlu loolu carrément gis nañ ne waa fédération bi daal ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax a baax mais ñun lu ñu leen di wax ñu gën kaa yokk parce que loolu lañu soxla ñun suñu football bi dañoo bëgg mu gën a wu rek ñun loolu rek la ñu bëgg tu vois kon lii tamit nii Moussa Niakhaté tamit bu ñëwee ba rejoindre équipe Sénégal bi lii tamit day gën a alerté bi nationaux yu nekk feneen tamit gën a ñibbi seen pays d'origine ñu football foofu ak tamit euh, conseil mu condom bu Valence ainsi que tamit abibé boo xoolee ñoom conseil ñu ngi daw bu baax a ci ne carrément nañ parce que jouer France amul avantage jouer France amul avantage après sa carrière dañ mais exemple Moussa mu Sénégal duñ ko a kon information bi laa ma bu fekkee genre vidéo yi neex na la maa ngi lay ne bu fàtte abonné wu nga amee vidéo bi nga activer cloche notification comme ça suñ bu ñu génnewaatee beneen vidéo rek nga bokk ci ñu koy gis ok di leen jox dig jaje ci kanam ak ay yeneen vidéo jaa ngeen jëf gaay